gars yi bëgg fi la waree temps bi temps bi temps bi temps bi yéen ma a xam ah waaw sant yàlla rek julli si yéen bi rek ñu waajal rek comme nañ doon waajale di ñaan yàlla may bari ay tamit du yomb du yomb waa di wax nañ waaj rek nañ waaj ñu doon waajal rek yàlla defal ñu ndam bari seen am am ah mais champion maa ngi mais nam naal de da ngay jafe de amat jàmm yee koo koy Eumeu Sène waa mene ali dëgg la so a nice kay may nice seen ah. waa ji ngeen àndal quoi waaj nañ bu baax ma sant yàlla bu baax ñi ngi ànd suñu mbokk ñu ngi ñaan yàlla suñu borom defal ñu sutura may ñu ndam incha allah ci kaw Bour Sine ci barke Cheikh Fall. xeexkat la. Bour ku rapide la aussi mën a dugg si garde gi. champion la xeexkat la champion la. xam nga waa mbuur maa ngi woo ñëpp waaw ñu ñëw jàpp si seen doom seen xarit xam nga waaw bi géewaay ñu ngi leen di xam nga bégaab bu baax a baax a baax a baax waa ginnaaw raay xam nga tamit koñ mankoo bi yëpp ñu ngi leen di woo. Buur a ngoog mais buur li lan la mu ngi ànd ak doomu ndeyam waa mais man man man def leen man nang mais buur doom day magal nañ la mais mais buur état bi mooy loolu de <laughs> non xamante ne tamit taay bi euh, moom it voilà lu tax lu tax ngay dugg si ñooñu ñun ragaluñ loolu parce que am nañ ñu fi ñoo xam ne ñoo ëpp ñi taay ñoom fils de balaat gaaye ñoo ëpp ñi taay ñoo leen sut ñoo leen ëpp waaw waaw ñu pare rek ba bés ba yàlla may ñu ndam sant Serigne Touba. Eh,